waaye boo ko gisee defee noonu ci sama gis-gis yaa ngi yaa ngi induire en erreur nit ñi. ci naka. ci nga environnement c'est quelque chose d'important c'est quelque chose d'important dégg nga kii mën nga mën nga juddoo euh, euh, arrondissement Diouloulou dégg nga zone bi mu dëkk mooy fi Ousmane Badji dëkkoon mooy zone u Sonko zone u sama sama nijaay ay dara foofu lañ nekk. donc comprendre ñu comprendre ñu dara dara Ahmed Khalifa Niass. dama li ngay comprendre rek l'histoire est en train de dégayer. le même euh, MFDC il y a soixante ans ou presque le même MFDC c'est jàppal élément MFDC même bu dee ko li ñu analyse politique. qu'est-ce qu'il y a lii lan la du dëgg su fekkee nit ki bu bu changé ni rek dootoo ko xàmmee loolu mooy li ñu war a xam mooy les mêmes éléments ñu doon mën menacé réew mi. sa sa sa kaddu yi sa kaddu yi nag mën naa taal dëkk ah. ah bu neexee bu la neexee yow xam nga yow yaa waxee noonu waaye man ma bëggee taal dëkk du euh, kon euh, séparation nga ni ma oo oh, pour ma taal dëkk bi man damaa toog jàpp sama ñaar bu nga woo ma ne ma kaay. man damay def analyse ne la affaire yi xam na ay danger les gens qui ont fait 68 huit et qui ont fait que le pouvoir était dans la rue peut que ñoom seen bop am nañ ci intérêt parce que bu réew mi tàkkee xëy na am na ñu danañ dégg euh, cër boo xam ne ko dégg yooyu yëpp gis na il faut que ñu weer loolu sinon réew mi day tàkk. jërëjëf Ahmed Khalifa Niass kilifa diine kilifa politique jërëjëf mbokk yi yendoog jàmm jaajëfalaat Georges Assou Mbène ñu ngi lay ziar yendoog jàmm.